def combat arène waaw ndax ma nag xam ah, man bëri naa ba ay 2005 sama yaay doo ko nangu ma bëri sama yaay si lu mu nangoo El Hadj Ndiaye sama ko nu mu bëri benn laa ma si def combat arène grand combat loon fii Joal waaw yàlla may ma si ndam. Ah, mais Apa bu daal Zal amaatul combat. waaw bu Apa yi ñoo ñemewul wala Zal bu mu laaj moo bëri wala nu mu demee. man sama premier kese li ma bëree sax kooku ak sama moom mën na koo bëree fii. Hmm. ma jiw boobu bu ma fay damaa tiit sax. Hmm. ndax yaakaar moon ne mun naa bëri loolu sax. Hmm. billaahi waaw nappoon pere tamit jox na mi ay combat yu bëri bëri mbuur mi yëpp day yàqu ndax jamono boobu nakri naa deret moom mhm. waaw loolu moom dëgg la moom mhm. Mhm. mais mosoo am combat Dakar. ndax mosuma am combat Dakar déedéet. mosuma tamit xam nga combat boobu combat Dakar métti na façon métti boo xam ne dañ lay jox ay billets. jaay yow mbir mi day tëggal combat 200000 jox la billet 400000. dox mystique. jóge si mystique bi li jënd ay oto yu war a dem Dakar loolu nga dem bëri jox gàddu si àll bi sax moo gën loolu noonu. billaahi man de loolu ah man da bëgguma ko moom. waaw. mais ba léegi Zal euh, bàyyi nga bëgg est-ce que des fois Zal boo amee temps wala sa yaram bu feexee bu neexee tuuti est-ce que Zal da ngay doxantu place booy yi nga jàpp leen ci contact bi wala sa xam-xam bi nga am ci bëgg nga partagé ko booy est-ce que parfois Zal day def loolu. chaque jour mais booy solo xam-xamu kenn chaque jour. Mhm. man chaque jour ma dem entraînement chaque jour. Mhm. mais booy soxlawul xam-xamu kenn mhm. booy boo si àndal entraînement tey bu subee bu subaa du ñëwaat. waaw fii daal moom garmi moom nopp la nopp moom garmi la kooku moom loo ko teg mu tegoo sàcc mbay loo ko teg mu tegoo mhm. njool mu sana loo ko teg mu tegoo mhm. waaw ñu moom soxla nañ conseil nit ñi moom mhm. waaw kon yeneen gars yi nag yeneen gars yi duñ ah duñu ñëw entraînement sax gars yi booy entraîné wuñu entra neexu tam wax nag nañ ma diingat mais entraîné wuñu de billaay lu ñu entraînement lu ma gis ñuy entraînement lu ma gis booy de entraînement non booy entraîné wuñu te booy lamb dafa am teraanga billaahi booy lamb dafa am teraanga te booy dañoo am wërsëg si lamb da nga gis yow nga bëre nga toog añ ba suur

dafa ko jaral liggéey ba dee. mais ba léegi euh, Zal euh, fu ñuy tëjee waxtaan bi mooy euh, gis nañ temps la ci internet bi <coughs> ngay def témoignage ci Bross El Bandit rakku Grand Mbagnick booy boobu Zal Ndiaye lu mu gës si moom ak lan moo tax Zal Ndiaye di témoigner si moom wala booy bi nu muy bëggee Zal Ndiaye noonu la doon bëggee wala lu mu demee noonu. non booy boobu damaa gis naa bopp si moom nag. parce que Seydina Mohamed mhm. man mënuma woon bëre de. Mhm. mais dama amoon xadar mhm. am fi man dem dëkk jàmbur faala moon dem dëkk jàmbur mhm. te man faala moon ñu ne kii mbëgg dëkk la mhm. man su ma dem bala maa gën a sadi sax ma ñëwoon sa dëkk tey jii te lu laa gis si broche quoi broche faalawul mbër mhm. te day màgg broche kenn la juddu kenn la bëre poussière kenn la bëre raw gàddu broche tey jii omposé si tànk yi ah nga gis ne muy màggee lenn rek laa koy wax bu mu changé dara si li muy bëre mbëkk rek dem bu mu changé dara dara na yokk entraînement yi làkkatu xam ne instant ne bunt bi bunt bi booy toll muy Boroso muy El Hadj Ndiaye muy ñangax muy min njool muy njool mu sana ah bëpp mbër muy bëri muy gaja faama ainsi lépp lay yomb jigéen da lay yomb di nga gis ni ku nekk nag te ni ñoo ngay ñëw nag faxalul la lu ngay def moo neex ñu ñëw bu neexee ba lu ngay def gisatuñ ko dañuy dem seen yoon lu grand ba ñuy def boo dafagul sax genn wàll bis waaw lu grand ba ñuy def si arrondissement bi si tànk boo dafagul genn wàll bi lu mbalka maag def boo dafagul genn wàll bi mais bu mu dund succès na dund man bër laa dof laa bu nii sax tak mi euh, ma koy xelal ku mu war a may na ko may ko ku mu bokkal dëkk ba soo koo fay lu mu nekk booy booy booy na ko may ma na ko may ndax loolu noonu tey ji yow bu ñu bokkee xeet nga xam may mayoo ma après sama mbokk yi lu ma nekk mbiru ndaw dina ma dinañu jaral koo war a may rek may ko koo mënta may tamit nekkul ma laa may waaw mais nag koo bokkal dëkk nga war ko may rek may ko waaw. est-ce yaa ngi dégg moom wala. boos mhm. non non aw ma numéro am sax mhm, non boos bëgguma numéro am sax non déet <laughs> man kat naa ko faral nii rek mais mhm. soxla ma numéro am sax man El Hadj Dia ma gënal ñëpp man waa Joal rek bëgg la mam quoi am jomam waaw mais man El ma man waa man lamb ju dem rek yàlla na ko waa Joal jël waaw bu ko waa Joal jëlul tamit yàlla na ko waa Mbour jël bu ko waa Mbour jëlul tamit <laughs> na ko waa Palmarin jël bu ko waa ndox mi jël man waa Joal rek bàkk ah. yàlla mais ba léegi eh, Zal nga nekk ancien Goulart lañ mën a wax ah eh, Joal fii nii eh, ak ak nu mu bëggee mbëgg pourquoi pas ñu am mbëgg boo xam ne par exemple tey di nii nii ah lam bu ñu mun a tëgg ah, mun na ko jël est-ce comme par exemple comme ñoom Dour Sané wala ñoom Ibou ñu ñooy def joof yow pourquoi pas warul am fii nii Joal te Joal ku ko tudd xam nga dëkku champion la dëkku lamb la. war ko mën a am de. Mhm. billaahi El Hadj Ndiaye. Mhm. ceeb bu Joal. xoolal Ndiol ren mu tuufee. njool do xoolal njool xoolal njool mu yem moo ngi ci moo ngi ci douze final ko bu ñu jógee Joal mbapat boobu da bu mu xëy si wala jël wéri ngara moo mhm. ngi ci douze drapeau ay ceeb mhm. ay elage mhm. tay yu ñu jox tey ji ay Papa Diagne ay min njool tey ji bu ñu nangoon tey ji ku leen teg coono ndax coono doo ko teg sa bopp ay Ablaye Ndiaye ñëw ñu teg leen nit teg leen coono ku mel ni Gogo Senghor ku mel ni Mbagnick ku mel ni Lane 2000 bu amee temps jaar fi dimle moo nga xam ne chaque jour dañoo entraînement a ñoom yi bu ñu teg booy coono fu booy dem dañuy jël làmb waaw mais tey da ngay ànd ak booy entraînement sax ñibi yàq dere booy na booy ñemul entraînement booy lii booy laa léegi nga si benn jigéen doo xam jigéen lu mu jigéen noo nga ne booy dañoo bëgg jigéen te loolu balaa caa nga ok wax ko man jàpp naa ne la nga lekk jox ñu la nga naan loolu wax rek ñoom lay jëriñ man nag booy ba ba ànd jigéen day def nii at nii sax afa yooyu noonu quoi mais da ngay jotaat di koy wax tey ji koo xam